daa leen ko wax di yàgg naa leen ko wax di maanaam da nga am taw tawfeex rek la ko may xaas la ñu am ñoom ñun fekk nañ de nekk si liggéey xas dëgg ci xas yi xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér wér wér wér yoo xam ne taw bi yëpp war nañ cee ñeex te ngeen dund ci fàggu waaye nag dañ ko bale xaas xaas ngeen am fooguma tawfeex tawfeex ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye ñun xaas ngeen am hadiyatul ilahi wa rasuli liya tawajjahat wa niltu soolii ba tey sëriñ tubaa ne hëddiyatul illaahi hëddiyaay sama borom muy may yi nga xam ne day bay ci sunu borom mu di ko xéewalee wa rasuli ak hëddiyaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaari ëddu yooyu yëpp booleen boolee sëriñ bi nee na tawajjaat mooy jublu nañ lii ci man maanaam daal ñi ngi may ñëwal léegi ëddiyaay sunu borom ak ëddiyaay yonent bi léegi ñi ngi bay ca yàlla ak yonent bi salaay salaam seenu ëddiya seenu may seenu xéwal yi may xéwalee léegi nag ñi ngi béykoo ci man di ñëw ci man ngi béykoo ca ñoom di ñëw ci man kon xasida gi daanaka li ci des lépp xeeti cant la rek moo tax man nañ koo gaawal tuuti rek ci gàttal mu ne hëddiyatul illaahi hëddiyaay sama borom muy ay may ay xéwal wa rasul ak hëddiyaay yonent muy ay may ay xéwal nee na tawajahat jublu nañ lee ci man moo tax mu ne waniltu am naa sooli sama pajuk aajo ëddee yàlla ak yonent bi yëpp jublu nañ ma moo tax mu ne am naa sama pajuk ndax ku ëddee yàlla ak yonent bi yëpp jublu rek di la teral rek kooku mënoo ñàkk am sa pajuk moo tax mu ne waniltu am naa gannaaw bi ma ëddee yi jubloo sooli sama laaj sooli sama pajuk aajo wajaxali soo layli wa nahaari xayrayhima mahan bilantihaari mu ne wajaxa jëmale na moom yàlla lii ci man ahmadul xadim soo layli yàlla muy boroomu guddi yi wan nahaari ak bëccëg jëmale na ci man mu ne xayray hima maanaam yiwi bëccëg yi ak guddi yi maan mboole seen bilan tixaarin ci lurut ak woru woru amut ci nee na yàlla mi moom guddi yi ak bëccëg yi nee jël na yiw yu nekk ci bëccëg yi ak guddi yépp jëmale ko ci man jox ma seenug yiw seenug njëriñ ak njëriñ ya ci nekk yépp te lii ma wax nag woru amut ci maanaam nekkul loo ne dama ko wax rek ngir waxantu wala wax joo xam ne yàlla daf ma ko defal ba noppi di ma ko pexel déedéet min xayri makri xaf yi déedéet du pexe moo xam ne maanaam yàlla def am lu ci lal nëbbu ko wala mu doon loo xam ne dama ko wax bu yowmal xiyaamee yàlla na li nga li nga waxoon yëpp dara amul ci déedéet nee na ci ak waru amul ci moo tax ma ne wajaa na lii ci man soo lay li yàlla mi borom a guddi wa nahaari ak bëccëg yi xayrayhima yiwi guddi yi ak bëccëg yi maan mboole seen bilantiyaari ci lut ak waru waru amut ci ilaya man la lahul ayaamu ma duunuhu siyaamu wal qiyaamu ne ne illee man Sëriñ Tuubaa xaada wommat na mooy may na ma man yàlla mi nga xam ne loxoo ñixal na ko moom al ayaamu bis yi nee na may na ma maa loo xam ne duunuhu yiis na mooy kawe na asiyaamu woor wal qiyaamu ak naafale nee na yàlla mi nga xam ne moom moom mboolem bis yi bis bu ñëw ak bis bu mën a doon rek yàllaa ko moom te moo xam lu tax mu ñëw ne na yàlla moomee jox na ma loo xam ne kawe na koor ñi nga dégg ñuy wóor ñëpp la ñuy am ca koor ya ñi nga dégg ñuy taxaw guddi di ko naafale ñëpp lañ cee amee yàlla jox na ma loo xam ne moo féete kaw loolu xam ne loolu kon wax ju kawe na yàlla jox na ma yàlla mi nga xam ne moom moom bis yi jox na ma loo xam ne kawe na moo xam koo xam ne koor gu jot da koy woor ak koo xam ne sax luru koor sax da koy woor ak luru koor sax da koy naafale ak koor bi yëpp da koy woor ko naafale ne yàlla jox na ma loo xam ne kawe na kuy koor kawe kuy naafale moo tax mu ne illee man sëriñ tubaa xaada may na ma man yàlla mi nga xam ne loxoo moo moom al ayaamu bihi may na ma maa loo xam ne doon hoo yées na mooy kawe na asiyaamu woor wal xiyaamu ak naafale mooy di taxu guddi yi di woor bëccëg yi di taxu guddi di ko naafale yépp ne ne li ma yàlla jox daal kawe na kawe na loolu man lahu suhuuru maa duunuhu tuhuuru wa tathiiru ne ne yaquudu dana wommat moom yàlla dana wommat liee jox ma man sëriñ tubaa man yàlla mi nga xam ne loxoo moo moom as xam nga waxoon na la ne yàlla mooy borom guddi yi mooy borom bëccëg yi jël na seen wiiwu jox ma ko fii mu ne yàlla muy borom bis yàlla mi nga xam ne moom bis yi jox na loo xam ne kawe na woor bëccëg yi waaye kawe naafile guddi yi fii mu ne la yàlla dana womat yàlla mi nga xam ne moom weer yi dana ma womatal maa loo xam ne dooduhoo yées na mooy kawe na ak tuxóoru laab ga wa tatxiiru ak laabale ga nee na yëquudu dana womat moom yàlla yëquudu dana womat li jox ma man Serigne Touba man yàlla mi nga xam ne loxoo moom mooy ñeel na ko asuhóor weer yëpp dana ma jox ma loo xam ne e, doonuhoo kawe na mooy yées na ak tuhóoru laab wa tatxiiru ak laabale nee na laab lu muy foor foor ak lumuy muy baax baax nga xam ne jaamu yàlla gune luñ ci bëgg mooy laab nga xam ne yàlla booy xool mboolem jaamu yàlla lam ca gën a bëgg mooy laab moo tax mu ne inna allaha yuhibbu tawaabiina wa yuhibbul mutatahhirina yàlla dafa bëgg ñu laab noonu itam la bëggee ku teey noonu la bëggee kuy def lu taaru ndax yàlla lépp moo taaru moo tax mu bëgg yooyu moo tax mu ne yàlla jox na ma loo xam ne kawee na laab ak laab bu ak ngëneel xam ne jaamu yàlla bu ne yàlla di ko dana ànd ak laab nee yàlla jox na ma loo xam ne kawe na laab waaye nag ak laabale laab ba noppi waaye nag di laabale nee na li yàlla jox daal kawe na loolu moo tax mu ne yoqul dana womat li jox man yàlla mi nga xam ne loxoo moom moom a suhóoru weeyi dana maa loo xam ne doonoo yées na a tuhóoru laab làpp wa tatxiru ak laabale ba tey mu ne lii yaquudu man lahoo sinoona maa xaada bil mafruda wal masnoona ñu ne ba tey yaquudu dana wommat lii jox ma man Sëriñ Tuubaa man yàlla mi nga xam ne lahoo moom moom ak sinoona at yëpp nga xam ne waxoon na weer yi léegi nag mu ñëw ci e, at yi ne ne yaquudu dana wommat lii jox ma man Sëriñ Tuubaa man yàlla mi nga xam ne lahoo ñeel na ko ak sinoona at yi maa xaada wommat na bii ci sama jëmm ji al mahfood yi mboolem yi ñu farataal yi wal masnoona ak yi ñu sunnaal yi nee na day yàlla mi nga xam ne moom moom at yëpp nee na womman na ci sama jëmm ji man Sëriñ Tuubaa mboolem yoo xam ne yu ñu farataal la ak yu ñu sunnaal nga xam ne mboolem julli day dugg ak mboolem yi nga xam ne dañoo la maanaam julli da koo làmb ak yu nekk ci biir julli yëpp ak xeeti ngëneel yëpp yàlla womman na ko indi ko ci jëmmi sëriñ bi radiyallahu anhu moo tax mu ne yokkudu dana womat lii ñeel ma man yàlla mi nga xam ne loxo moom moom asinoona at yi nee na yàlla moom maaxaada mat na bii ci sama jëmu ji al mafroda ya ñu farataal ya wal masnoona ak ya ñu sunnaan yëpp mboolem sunna yi ngay dégg mboolem yi ñu farataal yëpp julli yëpp nee na yàlla wommat na ko jox ma ko man Sëriñ Tuubaa alhamdulillahi alkarimi silminan ala istiqaali bi furadi wa sunan kon ci loolu la nekkoon ba yàlla jox ko lam ko tàmbale ca madul fawsey mu ne xoo moom yàlla moomee def loolee alkarim mooy aji tedd ji annaafiu mooy aji jëriñe ji waaye nag almukarrimu mooy aji terele ji wa abduhu te jaamam ba dee xayrul wara mooy ki ngën ci bindee fi waaye nag al mukarramu mooy kañu teral ka nee yàlla mi def loolu lii yëpp ma leen di nettalil jël yiw guddi yi bëccëg yi bis yi ah, weer yi at yi la ci njëriñ yëpp mu jox ma njëriñ ja nee yàlla mi def loolu de moo tudd kërim mooy kuy joxe mooy ku tedd ki mooy ku tabe ki waaye moo tudd naafiya mooy kuy jëriñ ji ki képp ko am jëriñ mooy ki la jëriñ waaye mooy aji terale ji ko am ay tiranga tiranga yi yëpp ma leen di nettalil moom mooy ki moo ko defal mooy aji terale ji te jaamam bi di ngeen ci bi def de mooy ku ñu teral bi léppam la moom sunu borom moo teral yonente bi alayhi salaatu salaam kon moom mooy terale noonu mooy jëriñee noonu yàlla moomee sabba joñ na al asa lor yi xan tawaju yi walis ñuy jublu lii ci man waaye joñ na ko bi xadri ca layoom ba alasim bay aji màgg mu dal di tagg yàlla na neex ma is kay xilliyaa ki nga xam ne mooy sama xarit te ki ma defal loolu mooy sama xarit mooy ki nga xam ne loor yëpp da koo joñ maanaam lor yi ma jublu woon yëpp da koo joñ nag léegi mu wëllis ma nga xam ne dootu ma jublu waaye lépp mu def ko nag ci dayoom bu màgg ba daal dina nix ma est-ce moom yàlla mi nga xam ne xilliyaa mooy sama xarit moo tax mu ne sabba joñ na moom yàlla al asa lor yi xan taw ji wëllis ñu jublu lii ci man maanaam lor yi dootuñ mu jublu yàlla joñ na ko waaye nag joñee na ko bi xadri ca ndayom ba dafa xool ci coobaram ji na ko soob rek joñee ko ko ci ndayom ba alancim bay aji màgg daal dina nix ma iskay xilliyaa ki nga xam ne mooy na wajaha moom yàlla lii ci man ahmadul qadim maa loo xam ne lay saalu du duñ mukk mukk mukk abada ci luy ba faw nee na yàlla lim ma jox lim jëmale ci man du duñ mukk mukk ci luy sax ba faw suruura di mbégteeg kulli képp kuy aji texe mu abada waaye doon loo xam ne day sax ba faw doon loo xam ne maanaam day sax di dappatoo ba faw nee na yàlla jëmale na ci man loo xam ne du dañ mukk ci luy sax ba faw di mbégte képp ku texe maanaam képp ku texe li ma yàlla jox maanaam mbégte lay nekk ci yow kon loolu xam naa ne lu kawe kawe la waaye nag loo xam ne day sax ba faw la ma jox la yàlla jox noonu maanaam day sax ba faw nga xam ne du am fu mu waaye nag day doon mbégte du dañ mukk du doon mbégte képp ku texe nee na farraxani bégloo na ma kaw ni nekk gi nga xam ne moom laa ko nekkuloon moom yàlla maanaam mujj nag di ma nekkal nee na loolu nag moo ma bégloo waaye nag bi lay ak daari ci luru benn xeeti nax-nax nee na loolu mooma bégloo fii haa si daari ci gii kër te muy kër ak adduna wa tilka daari ak gee kër te muy kër ak ëllëg yomal xiyam moo tax mu ne faraxan yi bégloo na ma kaw ni nekk gi ma nekkaloon yàlla mu di ma nekkal mu bégloo bi laa ak daari ci loolu benn xasi naf naf nekk bégloo na ma fiiha ci daari ci gii kër muy tiraanga yi may defal watil ka daari ak gee kër nga xam ne la ko waral yëpp mooy nekk du ma nekk nekkaloon yàlla léegi nag yàlla di ma nekkal loolu nag loolu moomu bégloo muy tiraanga yi may dotti ak ay xéewalam mu ne day dayfal karimi wal jamili wal wadoot rabbil wara wa bi yukarrimu judoot nee na dayfal karimi ganaleeg yàlla muy aji tedd ja wal jamili tey aju taaru ja wal wadudu tey soppaakoon ab jaamam te te ab jaamam di ko sopp rabbil waraa ki nga xam ne mooy borom bi ni te mooy yàlla nee moom de wuyu kërimu dana teral dana teralee bii ci sama jëmm ji maanaam juddoot may yoo xam ne yu bees taq lañ nga xam ne ci man rek lañ koy gis loolu mooy juddoot maanaam may yoo xam ne ci man rek lañ koy gis nee na yàlla de moom mi nga xam ne euh, mooy aji tedd ji nga xam ne moom dafa dafa tudd ne maanaam day gane yàlla foofu ci gànnaar mu demoon taalif xasida gi dafa demoon ngir gane fa yàlla moo tax mu ne bi ma yàlla nganaleeg yàlla buy aji tedd ja te tudd karim waaye nag tey aji taaru ja tudd jamil waaye nag tey wuddóot tey soppaakoon ab jaam ab jaam sopp ko nga xam ne yàlla buy teral ab jaamam tur lay tudd moom ni nga xam ne mooy borom bindeef yi mooy kuy tarbiya nee na yàlla moom de dana terale ci sama jum ju may yoo xam ne ci man rek lañ koy gis mu dima ko terale moom sunu borom tabaraka wa taala moo tax mu ne dayfal karimi ganaleeg yàlla muy aji tedd ja wal jamil tey aji taaru ja wal waduudun tey soppaakoon ak jaamam te ab jaamam di ko sopp nee na rabil moom mi nga xam ne mooy borom bindee fi nee na wuyu kuruma dana terala bii ci sa jëmu ji juddoot may yoo xam ne yu bees teq la maanaam ci man rek lañ koy gis